lépp rek ci weeru koor gi ñëpp dañuy daal di delloo euh, seen bopp ci yàlla tey tamit di gën a jàng seeni pa diine euh, mu daal di gën rek màcc ci seen i pexeel bokk na ci tamit moom njiitu réew mi mag yi sàll euh, gannaaw rek laata muy jugee ci bopp réew mi dalal na démb bu fukki waxtook ñaar jotee maanaam daal midi ki nga xamante ni moo ko war a wuutu ci xilaafab réew mi di Bassirou Diomaye fay gannaaw ab nemmeeku goo xamante ni amoon na foofule ca palais présidentiel den ci dikkaat ci nu mu gën a yaatoo mbokki yeneen i xibaar. xibaaru tàggat yaram la ñu daal di buuree xibaar digg bëccëg gi ñu daal di sóobu ci yaatal gi. mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah ñu leen dalal jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi nañu ko junjee woon ñu daal di sóobu ci yaatal gi ak tey yemook aljuma euh, suñu mbokk chrétien yi euh, di màggal bés bi nga xamante ni euh, ci la Yeesu Krista ñàkkee bakkanam wala bokk di fàttaliku ba mu ñàkkee bakkanam ci kaw boobu boobule ba tax na rek àdduna wërngal këpp rawatina fii suñu biir réew bépp jàngu nekk fii ci biir réew mi bi ñetti waxtu jotee la ñuy tàmbali li ñu tuddee chemin de croix. ana euh, lan moo sabab lu nimel mel ak itamit faatub moom Yeesu Krista ci kaw croix le moom père Lazare Gomis nekk curé euh, paroisse Saint-Christophe bi nekk foofu foofile ca Yoff mi ngi indil ay leeral ci bésub ajuma ji tey euh, ñoom ñi le jàngu bi di ko daal di màggal mi ngi àddu ci micro Angelina Gomis ay tëndoo yi juma ju sell ji dañuy fàttaliku deew Krista bi ca croix ba coonoom ngir ñun miskin yi bàkkaarkat yi ci bés boobule ci la Christa bi daal di dee ngir àdduna sëpp ngir njabootu yàlla gi yëpp ci bésu ajuma bu sell bi kercen yi ne leen di ñaan ñu daal di dallu delloo seen xel ci yàlla te gëm ni yàlla moo yónni doomam mu sell mi mu di Yeesu Christa ngir musal ñu te moom moo dee ci kuraat ngir sunuy baakaar ma noonu mu nekkoon na ay leeralu moom mi lee père euh, Lazare Gomis bi nekk euh, foofile curé euh, bu nekk ca paroisse Saint Christophe bu Yoff waaye tamit tey li nga xam rek moom mooy askanu Sénégal rawatina jullip jullitu Sénégal ñu ngi ci biir weeru koor yi foofu foofile ca marché Sandaga la fa gën a fës rek ca jaaykat yooyu le mooy ñi nga xamante rek nekk ay jullit di ñëw jënd si ay kurus rawatina tamit ay sajaada jullikaay ah, te it mu nekk weer koor goo xamante rek ñëpp dañuy delloo seen ah, xel ah, ci suñu borom rawatina tamit di jàng seen diine ci weeru koor gi tey tamit di jullee ka ñaan ngir suñu borom am njéggal ci seen kaw rawatina tamit ubbil leen ay xéwal ci weeru koor googu le dañ ci ànd ak Ramata Sarr ñaañaka demoon ca marché Sandaga weeru koor nekk waxtu yi nga xamante ni jullit yi dañuy gën a yitteeloo lépp li leen di yokkal pas-pas ci diine ji ñii nga xamante ni ñooy yangu ci njaayum li ni mel nag ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax. alhamdulilah alhamdulilah sant yàlla bu baax alhamdulilah euh, liggéey bi moom daaw ak ren yëpp moom même chose la amul benn différence nit ñaa ngi ñëw ñu ngi ñu ngi jaamu yàlla ñu ngi jaamu yàlla jaamu yàlla wax dëgg yàlla ñu ngi si góorgóorlu bu baax. waaw sant yàlla quoi alhamdulilah. kurus yi itamit dara demul ñu des euh, ci jamono jilee yokkuwul même chose la rek amul changement dañ ko yittewul bu baax alhamdulilah. téere li mu doon jar daaw ren itamit dërëm yokkuwu si lu waay am am ci. kaamil moom amul njëg ça dépend rek am na ay ñeenti téeméer am na juróomi téeméer am na am na cinq mille am na dix mille ça dépend rek lu waaye lu waaye am rek incha allah bu ñëwee fii moom dina am. ñoom nag ñu ngi woo fidèles yi ngir ñu gën a di jëfandikoo li ni mel ndax rek gis nañ ni xéewal la ci ñëpp. foofu ca diwaat gu tedd ga di uh, Touba Mbacke ca jumaa ju uh, tedd joogi uh, ñi nga xam rek moom mooy daayira mu xat matul xidma dañuy amal rek joxe ndogu foofu la ca juma ju tedd ja nekk foofu ca Touba li ni mel rek di topp li nga xam rek moom mooy ay li nga xam moom la ñu tàmbali woon atum deux mille vingt cinq Euh, ci euh, li nga xamante ni rek moom mooy xilaafab euh, Serigne Saliou Mbacké kon ren ji la rek daal dinañuy génn lu toll si téeméeri million ci suñu ay koppar ngir rek amal ay xewlu yoo xamante ni yu mucc ayib la te itamit bakkane loolu di ko jox taalibe yi dañ ciy teelu moom Serigne Abdoulaye Diop responsable daayira Muxadmatul Xidma mi ngi indi ay leeral ci li nga xamante ni moom la ñuy jëfee foofu ca jumaa ja ci weeru koor gi mi ngi wax ci micro Jibril Xulle ndog yi nga xam ne moo jëm ci mbokki taalibe yi ndax xam ngeen Touba Carrefour la boo xam ne du tàqalikook mbooloo jumaay Touba itam jamono bu nekk bu waxtu timis jotee mbooloo mu bari dañ fiy nekk ñi ci jóge ci marché Ocass di wàcc di ñibbi di fi romb ñenn ñi sax di di jaar ci dëkk bi di jàll ci yeneen i dëkk dog fekk leen ci li wër jumaa ji ñenn ñi di ñëw di julli si jumaa ji dog war leen fee fekk mbooloo moomu nag di yokk yokk ba nga xam ne tey àgg na ci juróomi junni nit yoo xam ne ñoo fi dogee par jour li nga xam ne moo féetee kër sëñ Fallou ci yokk boobu ba wër ba dem kër sëñ Saliou loolu lépp mbooloo mi di fi nekk loolu nag laaj budget bu mag boo xam ne daaw budget bi mi ngi tolloon ci soixante-dix millions ren jàpp nañ ne dana yokkoo yokk ba àgg ci lu mat cent millions di ngeen gis lépp ci image yi muy barab yi ñuy dogee ak jumtukaay yi fi ñu koy toppatoo ak fi nga xam ne fi la ñuy waajale yi ak commission yi nga xam ne ñoo ko yor nga xam ne toll nañ ci cinq cent cinquante membres séddalikoo ci ay juróom-ñaari commission muy organisation culture sociale communication euh, ak euh, commission finance yi nga xamante ni ñooy saytu mbir mi ànd ak mburu mi nga xam ne li ñuy jënd par bis àgg na ci deux mille cinq cent pain li ñuy jëfandikoo ci suukar àgg na ci juróom benn saakoy suukar waaye liggéey bi ñu ngi ko tàmbali woon ci atum 2005 ci jamonoy Serigne Saliou li taxoon ñu euh, ñu def ko itam mooy ay mbokki taalibe yu nekk ci dëkk bi xalaat ne weeru koor ni mu màggee ak ni ko suñ Tuubaa fonke woon war na bu jotee mu dëkk bi soppeeku rawatina barab bii ñu nekk muy jumaa Tuubaa ñu xalaat ne loolu wara su ko mën a defe fenn fu dul jumaay Tuubaa ñu ànd ak ay kilifa dem ci Sëriñ Saaliw laaj ko ci ndigal mu joxe ci ndigal ñaan ci xam la ne lé yéen la fi doon xaar te di ngeen ci dajeeg lu kawe ci wàllu xéwalu googu sax gis ne rek moom la ñuy daal di joxe ca jumaa ju tedd ja nekk foofu lee ca ci weeru koor gi ñu bëri rek dañuy euh, sopp soppi li nga xamante rek mooy la ñuy xewloo te tamit ñam yu bëri yoo xamante ni ci la ñuy lekk ci weeru koor gi lu ci bari rek dafay am suukar rawatina tamit yenn ñam yoo xamante ni graisse bi dafay bari lool te lu ni mel nekkul loo xamante ni moo gën ci wér gu yaramu doomu aadama ba tax na ki nga xam ni xelam dafa màcc ci wàllu xewalu maanaam daal li nga xamante ni doomu aadama moom la war di lekk ngir am wér gu yaram moom le docteur jibi Samb mi ngi dikkaat ci yenn jafe-jafe yoo xamante ni mën na ko jural ñi nga xam dañuy lekk ñam yoo xamante dafa bëri suukar ak i tamit yu bëri graisse ana nan la ñu war a jëfandikoo wala boog nan la ñu war a xewaloo ci weeru koor gi le moom docteur Djibi Samb mi ngi ci indi ay leeral ak euh, ci téléphone Ndeye Fatou Diop. waaw concernant ci wàllu euh, ndogu bi ak aliments sucrés yi je pense que liñ ci conseillé mooy wax dëgg yàlla bu ñuy dog moom liñ préféré mooy bu dee tàndarma la wala ndox après danga nga ciy teg lu léger bul ñëw rek euh, d'emblée rek nga ñëw rek ñu ne doog jot na rek nga commencé jël loo xam ni dafa diis trop trop trop naan ndox bu bëri remplir sa biir je pense que du luñ conseillé liñ conseillé en tant que diététicien nutritionniste euh, mooy vraiment que ñu koy def de manière fractionnée et de manière progressive maanaam mën nañ naan suñ ndox mën nañ lekk suñ tàndal ma doo lekk dara ba pare doog see teg nag boisson chaude yi mooy café wala sa ataaya wala sa meew loolu yaa xam daal lu tàng loolu nga bañ ko njëkkee daal euh, en même temps aussi li ñuy conseillé mooy bu dee ne mburu la wala fonde la wala laax la wala lu mënti doon moom ngay dogee na nekk loo xamee ni boo koy jël daal na nga koy jël de manière bu dee mburu bi la li nga ciy def warul nekk lu niin niin trop trop trop préféré nañ nag mu nekk un aliment protéique mooy mu nekk lu jugee ci wàllu ndawal wala ci wàllu nen wala ci wàllu jën yu mel noonu nga xam ne day apporter mais mu bañ a nekk loo xam dafa nin trop trop trop daal ba pare aussi dañuy digle nit nit ñi aussi moment boobu noonu ñuy faral di lekk ay fruits euh, ak ay vraiment di naan ndox bu bëri waaw Sénégal nag waaye ñun moom da tàmm nañ di naan jus de fruits jus de fruits am na quantité d'eau mais aussi la meilleure boisson bu ñu ko fàttee mooy l'eau voilà aussi ça va nous aussi ñu diminuer suukar bu bëri bi parce que vraiment suukar bu bëri bi ak lu niin li jàppale wuñu ci wàllu koor gi mais dañuy gàllankoor ci wàllu wér yaram parce que nañ nañ fàttaliku ne ne am na ñoo xam ne am nañ wér-gu-yaram ñi ngi woor am na ñoo xam ne sax bon amuñ wér-gu-yaram mais ñi ngi jéem a woor mais daal di leen wax ne daal c'est l'occasion d'aller voir le médecin bu dee ci wàllu diabétique gi la wala hypertendu avant ñuy sonn ci koor gi daal. bokk na ci lu bari lu ñuy xewaloo ci weeru uh, koor gi rawatina tamit uh, bu ñuy dog koor mu dip uh, tàndarma mu nekk loo xamante ni sopp nañ ko loolu ci weeru koor ba tax na rek askan bi ñu ngi koy jënd ci ab lim bu takk bu bokk na ci ñoom jaaykat yi nga xamante rek ñoo nekk foofu la ca marché bu Sandaga. Euh, fukki euh, wala wokk ñetti junni la ñuy jëndee li nga xam rek moom mooy ci wàllu tàndarma jaayee ko waat lu toll si juróomi euh, junni kon ñu wax ne rek kilo bu nekk rek am na la muy jar ci tàndarma goog nga xamante ni taamu nañ ko loolu ci weeru koor reportage Mariam Soda Ndiaye Cheikh Tidiane Sène ñu fekk tàndarma bi mi ngi jar bu baax ndax julliti sénégalais yi moom la ñu taamu di ko ndogoo. waaw dëgg fa yàlla moom mi ngi jar moom. mën naa jaay ay bu dee karno bu ndaw bi 4 carton 5 bu dëkk bi doxul mën na jaay 2 wala 3. ci buntu koor gi nag cheroon na ndax kes gi daan na jar ba 13000. njaay mi waaye ñooy sant yàlla bu weer de moom ñooy sant yàlla bu baax a baax a baax maam seer na ba mu commencé bés moom seeroon na lool ndax da daa suñu événement daa nekk événement boo xamante ni boo xasee dugg si ñi nga xamante ni seen métier la ak bu nekkul seen métier yëpp dañ ciy dugg waaw waaye ñun nag ñun nga xam danañ xool ñu ko meñcee ba génn si quoi. beneen jaaykati tàndarma nee na moom jëndee na ko sax quinze mille kees gi. Ah, buntu koor dama métti woon na ma buntu koor gi moom carton bu mag bi daan na jar 13000 mille ba 15000 te ñu ngi ko daan jëndee 12000 mais agent yi wàccaat na ba 13000 bu dee bu bi la mi ngi jar mille 6500 ñii am na ñu koy jaay tamit 6000 bu ndaw bi. tàndarma ji nag par façon la te bu nekk ak li muy jar. mais ça dépend nag tàndarma yi dañoo bëri ça dépend quoi. ay ay qualité qualité la man qualité bi may jaay bu Algérie tàndarma Algérie bi lay gën di jaay quoi ak bu Tunisie bi dinaa si jaay mais li ma siy jaay bëriwul bëriwul quoi. léegi bu Algérie bi nag moom moo gën a seer. jaaykat tàndarma yi ñu fekk Sandaga nee ñu bu ñu sañoon koor gi gën a yàgg ndax lu koor gi gën a dem njaay mi di gën a neex ci seen kàddu. leneen ci wàllub xibaar ñu wax ne rek moom euh, njiitu réew mi euh, président Macky Sall mi ngi waajal boppam rek euh, ngir daal di mën a jébbal lenge yi démb fukki waxtoo ñaar maanaam di ba mu jotee dalal nag ki nga xamante rek moo ko war a wutu di président Bassirou Diomaye Faye amal rek ab neeme ko ko waxtaan foofu ca biir pale ba. moom euh, njiitu réew mbam ca noppi rek daal nay dalal ci biir cabinet ñi nga xamante ne rek ñoom lay liggéey ndool ngir rek tàggu leen bokk na ci euh, ñeenti fan laata rek muy daal di jébbal lenga yi euh, président bu yees bi moom président Macky Sall lépp loo xamante ni ay moomeelam la nekkoon ci biir pale ba lépp daal di nañu koy roñ ma mu daal di set wecc desatul dara sax daanaka ci biirom foofu la ca biir pale ba bokk na ci tamit li nga xamante rek moom mooy ay moomeelam yoo xamante ni yóbbu na ko lii nga xamante ni photo euh, soxnaam euh, Marième fay Sall nekkoon ca euh, bureau loolu tamit dal di nañu koy dindi ba mu daal di set wecc ñuy fàttali passation de service moom jébbal lenga yi président Macky Sall. dana ko def diggante moom ak Bassirou Diomaye fay ñaari fan ci weeru avril bii ñuy dëgmal foofu ca centre international bu conférence Abdou Diouf bu jam euh, ñaajo waaye tamit moom njiitu réew ma président Macky Sall dalal démb ki nga xamante rek moo ko war a wutu di Bassirou Diomaye fay foofu ca biir euh, pale euh, présidentiel ñoom ñaar amal nañu waxtaan ci seen biir ca biir pale ba gannaaw moom njiitu réew Macky Sall ba mu dalalee ka koy wutu di président Bassirou Diomaye Faye ci eh, ab leeral lañ si ànd ak eh, Khalil Jéeme eh, ci nu mu gën a yaatoo. mu ngi woon ci palais de la république gannaaw bañ ko tabbee mu nekk njiitu réew ci bopp Sénégal njiit bu yees naataangoam bii di président Macky Sall dalal na ko ci alxamis bi gannaaw bañ doon amal ab jano diggante ñaari homme d'état mu nekk am ndaje bi nga xamante ne nemmeeku nañu ci saafante loxo waaye it ñu amal ay accolade yi nga xamante ne daanaka gis nañu ci tàmbale réconciliation diggante ñaari homme politique ci loolee Macky Sall mu daal di dalal ki nga xamante ne moom moo ko daal di wutu ci siis bi ci ab audience bi nga xamante ne gis nañu ci ay xar kanam yu kontaan lool waaye naka noone ñaari homme d'état yii de dinañu waxtaan ëllëgu Sénégal waaye it ay dossier yu mag yi nga xamante ne ñoo nekk ci état bu Sénégal naka noone dinañu waxtaan it lépp lu jëm ci wàllum cérémonie bu prestation de serment bu Bassirou Diomaye fay ak it passation de service bu njiit bu yees biile ci bopp Sénégal mu nekk audience bi nga xamante ne gis nañu ci tamit ñoom ñii le amal nañu ab visite ci biir palais présidentiel loole yépp ñu teg ko ci wàllum mucc ayib ñu wax ci leneen ak euh, centre euh, Gindi daal di nañuy rek euh, dimbali ñi nga xam rek moom mooy wala bokk gone yoo xamante ni rek jamono ji dañ leen doon a jébbal ay ndimbal lu soxal woo wàllub xewlu ci weeru koor gile ñi nga xamante ñoo jëfee lu ni mel di agence turque coopération ak développement mu di TICA bokk na ci tapit ci jàppandalub ministère bi yor wàllub soxna yi njaboot gi ak i tamit li nga xam moom mooy kaaraange tout tànk yi moom Cheikh Thioune nekk centre bi daal nay rafetlu jëf ji nga xamante rek dañ ko jëf euh, ci kaw gone yooyu nga xamante ni ñoo nekk foofu foofule euh, centre di euh, gindi dañ ko ci teelu ak Biram Xari Ndaw ay kàddoom. nii dafay gën a accompagner le centre parce que des fois dañuy dañuy arrivé ñuy am un nombre pléthore donc de pensionnaires yu ñuy ñëw yu ñëw. donc comme ni nga xamee centre bi boo xoolee l' état du Sénégal moom moo jël en charge totalement le budget donc avoir ces partenaires la mission donc dafa nekk yoo xam ne ay partenaires yu ñuy saluer la. envoyé woon nañu benn équipe d' ingénieurs la semaine passée pour ñu ñëw donc boo xam ne inondation yi moo ko daaneloon ñoom dañu donc engagé wu pour reprendre le mur. un peu aussi gën a améliorer vraiment cadre bi donc gën a aussi defaraat dortoir dortoiru xale yi. donc loolu vraiment aussi ci tey ci lancement bi la bokkoon naa lu yàggul dara incha allah dinañ commencer les les ci mission centre bi nekkul que ne dañuy jël en charge tout simplement xale yi parce que aussi am na ay jeunes filles yoo xam ne ñi nga xam ne seen jàng sorewul wala dañu jàng ba si yàgg wala dugg ñu école wala jeunes filles yoo xam ne de maltraitance wala de viol dañu leen récupérer di leen former donc actuellement au niveau du centre am na ñaari filières de formation yu ñu leen nekk des formations en coupe ak des formations en restauration actuellement ils sont au nombre de 60 ñoom ñoo fi nekk actuellement ñu leen di vraiment former di leen tàggat. ma nga noonu mu nekkoon na pàcc bu njëkk ci xibaaru digg bëccëg gi ñaareelu pàcc gi la ñuy song muy tàggat yaram. ngi dañuy daal di wax ak li soxal la wàllub euh, lii nga xamante ni moom mooy tournoi de l'amitié euh, ñi nga xam ne wu ñu fukki at ak juróom-ñett di amee euh, foofile ci réew Mali Sénégal gagné nañu seen match bu njëkk démb seen diggante ak Tunisie. juróom-benn fukki bal ak juróom-ñett ci juróom-benn fukki bal ak ñaar ñuy wax rek ñoom gaynde Sénégal tey jii la ñuy dajeek ak waa Guinée juróomi waxtu bu jotee Mali mooy dajeek euh, Mali euh, dana jongante euh, matcham incha allahu rabi Tunisie moom mooy dajeek ak Mali kon ñu wax ne rek match yooyu tey foofu le Eh, ca eh, stade eh, palais des sports Salamatu Mayga bi nekk foofule ca réewub Mali buñ ca noppee ñu wax ci wàllub football ak championnat national Ligue 1 bu Sénégal résultat yi nga xamante ni rek. moo daal di am gannaaw bi ñuy fubal seen fukk ak juróom-ñetteelu bëccëg ñuy wax ne rek ci résultat match yi nga xamante ni fubal nañ ko diggante ajjuma euh, wala bokk euh, àllarba euh, ba ba démb kon Dakar Sacré-Cœur boom ci FC moo ko daan ñaari bal ci dara Sonacos ak Jaraaf ñoom ñaar kenn dugalul dara US gore dafa daan Casa Sport ñaari bal ci dara euh, Guédiawaye football club moo gagné stade de Mbour ñetti bal ci benn US Wakam ak Génération Foot ku nekk benn bal noonu itam diggante euh, jamono bu Fatick ak Linguère bu Saint-Louis jàmbaar ak AS Pikine ñoom ñaar dañu témboo kenn dugalul dara. ci euh, fukk ak juróom-ñetteelu bëccëg tamit euh, Ligue 2 Walidaan fi mu nekk nii moo nekk ci bopp euh, raw gàddu gi kon gannaaw ndaje yi nga xamante ni doon nañ ko amal tàmbali ko woon ko àllarba ñu wax ne rek ci match yi nga xamante ni moo doon am renaissance bu yoo fa Kër Madior moo ko fekki duma ko duma yu métti ñeenti bal ci dara Oslo FA HLM bu Dakar ku nekk benn bal CNEPS Excellence moo gagné ci FC ñaari bal ci dara. jikk Duc daan kenn dugal dara euh, Thiès FC moo gagné Agel bu Rufisque ñaari bal ci dara AS ak Ndiambour ñoom ñaar dañu témboo kenn dugalu dara ñaari tali moo gagné Demba Diop ñaari bal ci euh, dara ñu wax euh, championnat bu euh, France euh, kon ndaje yi nga xamante rek moo ci war a am ñuy wax ne rek ndaje yi danañu ko tàmbali tey ci ajuma ji match yi nga xamante ni dana am bokk na ci li ci gën a fës mooy dimanche incha allah maanaam gannaaw suba diggante Marseille ak Paris Saint-Germain lay doon gannaaw rek bi ñu amee lay ab bër ñaar fukk ak juróom-ñaareelu bëccëg bi danañu ko jongante kon ñoom gaynde Sénégal di amal ay match FC Metz mooy dajeek Monaco Metz bi nga xamante ni rek. Euh, moom mooy si daje ak Monaco euh, ñuy wax ne yeneen match olympique de Marseille Paris Saint-Germain euh, dimanche lay doon kon ñaari match yooyu moo gën a fës ak gaynde Sénégal yi nga xamante ni war nañu bokk ci yooyu le jongante mbokk yi mi ngi noonu loolu la woon la gënoon a jàppandee ci xibaaru tàggat yaram foofu la ñu daal di buuree. xibaaru digg bëccëg gi di jaajëfal alaaji abc ak i tamit moom Serigne Mohamed Thiam mbokki xibaar yi ko ko togg mu di réalisation soxna Diallo Loum jaa ngeen jëf ngeendo ak jàmm aljuma mubarak